sama yoon laa bëgg defaraat quoi. combat bi dafa nekk combat boo xam ne. combat bu am important la suma carrière. si si kanam sama place laa jëlaat si làmb te incha allah le huit. nga xam ne damay jëlaat sama place si làmb. man may xale man maa nekk si yoon. man la làmb gën a yaakaar bu dee bëre maa ko dàq bëre bu dee doole maa ko bu dee fit maa ko dama jël combat bi pour wane suma bopp dama jël combat bi pour bëre ak moom dama jël combat pour daan ko combat bi maa ko gën a soxla yoon man combat bi ñaanu ma ko yàlla lu papa am si man damay seeti leneen su dëggalee boppam dañuy xeex dañuy bëre ma daan ko incha allahu rabbi dama xamul ne yem ma ba jël ma loolu dina dëggal boom rek papa mi ngi wax maa ko gën a bëgg su dëggalee boppam mu duma ko daan ko incha allah te lamb ji dama deux minutes su dëggalee boppam ñu bëri man ak asalaamaaleykum mbokki internet yi di leen nuyu bu baax di leen ziar di leen bëggee ñu suivre sur Kewel Info du nuyu kilifa diine yeeg kilifa aada yëpp du nuyu sama sëriñ notre responsable moral bu daayatu Moustarchidine dina Moustarchidaty du nuyu kilifa diine yëpp actualité oblige tey ñu ngi fii si Géejawaay ñu seet ki nga xamante ne moom mooy Lamine Faye puisque nag opération tabaski dafa xew ah di ko nuyu bu baax a baax ñu fekk fii ci géej tam xam naan moom tey moom su may dem sama frère bi moom tey laay xam ne nag ba xam sama digganteeg moom moom lu sûr la wala lan la dina ma jox xar la joor nag di ko béggawaat bu baax a baax ndax dafa mel tey moo goroom cey cey xaw ma yaa noom la joor xawmal mais daal en tout cas loolu moom <laughs> internet ñoom ñooy jugé quoi di ko nuyu bu baax baax moom la joor ndeysaan di ko ñaanal yàlla moom it xéwlam yokk léppam yokk même tamit xam naa man tamit su may dem la joor dina ma jox xar ndax am na xar bu ma wan ne maa a moom ah la joor <laughs> maa ngi nuyu la di la fay di la suyaat di nuyu monde entier yëpp rawatina Sénégal di nuyu monde de la lutte yëpp tamit encore une fois di nuyu waa géejawaay gi yëpp yëpp rawatina fii nga ma fekk si marché Sam si bergerie Lat Dior moo fi jaay xar moo fiy def opération di jaay xar. am na yii dama koy maye rek dama dama koy maye rek. waaw daa ñoo xam ne nii wax dëgg yàlla new di doole lañ waaw may def benn social boo xam ne ni mooy loolu dama koy maye waaye yow damay maye xar yi rek. doole comme. yaa mën moom. waaw waaw àdduna moom yàllaa dara dañu àdduna dafa ji àdduna bi tamit yàlla moo ko moom. tey jii lépp loo fi gis ak yàlla sunu borom la quoi te da ngay toll benn moment boo xam ne nii dangay xam ne fii yàlla rek moo fi nekk moo tax may taafantoo wax jooju di ko kafe rek wax dëgg yàlla naan àdduna yàllaa ko moom waaw waaw gis nga. Mhm. Euh, bu ñu ci foofu loolu kon nee naa ko sànq actualité euh, ñu gis ne làmb ji Lamine euh, nan nga gisee en pour l'instant làmb ji gis nañ làmb arrêté nañ ko. Lamine amoon na ci ay poulain yoo xamante ni dañuy bëre te bu ñëwee ci làmb ji ñu soog a ñëw ci car fils de Balla lan ngay gisee làmb waaw làmb fi mu ne nii fi mu ne nii toll nañ guddi yoo xam ne làmb moom ku naan sooxewul rek da wax lu amul mais ñëpp xam nañ ni làmb dafa sooxe ndax lépp rek muy communication làmb moo indi lii lépp ndax tey jii làmb ñoo dugal seen bopp foo xam ne waruñu faa dugg ndax du suñu domaine ñun ci làmb rek lañ war a waxtaanee mais muy man mi di keneen ak keneen ak keneen. xuusoon nañ ci politique bi xuus boo xam ne nii waruñu moo waral yii yëpp mais tamit làmb mooy suñu esport national dañuy ñaan rek yàlla delloowaat ko fa mu nekkoon. Mhm. le fait tey ñu bari am na xale yu bari dañ leen a pénaliser ku ci mel ni cas yu Youssou Ndour yow yaa ko doon entraîner su ma juumul bari na ci ñoo xamante ni yaa ngi leen doon entraîner seen i combat avorté mais loolu nan ko gisee. metti rek metti ndax ay mbër yu ndaw lañ yoruñu dara préparer seen combat mu des ay deux jours ñu xamal leen du am loolu dafa metti te loolu moo leen dal. mais tamit li ñuy wax rek jaam ak pexeem yàlla ak dogalam sante ko yàlla rek ñoom laa leen di digal ak ñu konnewaat nekkaat ci lañ nekk rek te xam ne lu mënti xew rek dinañ ko sëgg bëre. beneen bi mooy muy ci cas Fils de la gis nañ ni ay combat ak Doomu Dangu bari na polémique Fils de Balla waroon naa bëri la carte ñëpp gis nañ la carte manifestation dafa amoon ñu dégg ko man maa leen invité woon su ma juumul seetaan nga ko moom mu ne combat bi jeex na mu indi ci ki nga xamante ne moom mooy promoteur ci Père Max loolu nan nga ko gisee le fait que lu mu ne dootul bëree ñii ne Fils dafa war a bëree ndax waru jël xaalisam léegi mais nan nan nga ko gisee. waaw tey jii ñoom Fils de Balla tey jii benn côté soo xoolee danga naan ñoom ñoo nekk si dëgg ndax ñàkk considération moo waral loolu lépp am ndax tey jii ñëpp xam nañu làmb dafa métti préparation dafa métti tey promoteur soo tëggee làmb tëgg ñaari ndaw yu nekk ci yoon combat bi yàgg jëm ay 7 mois mu dem ba des 15 jours soo amee beneen boo siy jël sax wax leen ko quoi beneen décision booy jël soo koy jël wax leen ko mais bu leen seetaan di dugg ci yoo xam ne nii tey ji dem ba mu pénal yo xëy xëy rek neen làmb ji amatul ak booy fiñ liñ daj ci combat beeg yooyu yëpp loolu rek moo métti mais liñ naan réeroo amul ñàkk a waxtaan la Fils de Balla xale la doomu dàngu xale la xëy na làmb lañ am te làmb lañ yaakaar te xëy na liñ si daj xëy na moo tax ñuy waxee noonu mais ba tey déggoo tey ji ku mel ne lamin communiqué si wala keneen ñëw ndax ñun bëgguñu di tëb tëb tëb rek di wax luñ maîtriser wul dañuy bëgg suñ demee bay wax rek li ñuy wax dañ koy maîtriser te dañuy am fa wax boo xam ne dañ koy wutal tubéy duñ ko sol noonu rek bañ koo ñoor bañ koo dañ koy wutal tubay sol ko takk ko ba mu dëgër moo tax ba léegi communiqué gu ma ci ndax Père Max waxaguma dara Père Max waxaguma dara am na na ku sës si caalis woo na ma expliqué na ma teew li ñu waxtaan si ménagère am mataan Ndiaye woo na ma waxtaan nañ fils de Balla au pareil amul leen lu muy dugg suba ba ngoon du ci wax ak man moom it waxtaan nañ ci waxtaan bu sori te dégg na li ma ko wax dëgg yàlla li ma ko wax dina ko def man am naa ci yaakaar. kon gëmoo ne ak Fils de Balla dina am incha dinañ bëre mais lépp waxtaan la rek. waxtaan la ndax ñoom it daa am loo la préparation combat dafa metti am na loo xam ne soo ko tegalee booy rek dina di nga leen mën a gëdd man am naa ci Fils de Balla am naa ci moom wàll am naa ci moom gëdd boo xam ne nii su ma ko forcé ne ko bëreel dina bëre mais ci kaw ñëpp xam nañ dañoo préparé ba combat des 15 jours. financièrement Fils de Balla tey jii dama cee xam lu leer ci Fils de Balla amul leen lu ma nit di wax ci moom lépp xam naa ko jaay nay nagam jaay nay biam motoom ba mu yoroon sax da koo jaay def ko ci làmb ji te loolu ay millions la tey jii la ko promoteur ba joxoon si avance Fils de Balla man xam naa ne def na si double bi kon lii problème bi mooy leen na leen yëkkatiwaat jox leen loo xam ne ni dinañ ci gën a mën a préparer waat waaw te xam ne moom fautif bi si moom la du woon si mbër yi mbër kenn blessé wul moom moo am fautif léegi na yëkkati xaalis bu takku rek jox leen am na solo tey nag euh, ñu ngi fii ah dalal ki xam te ne moom mooy Lamine Faye nee naa leen opération tabaski ko xar yi moom mooy loolu il faut ñu il faut ñu sol ay tur yoo xam te ne mënoo dugg ci li nga xam te ne moom mooy ci euh, tabaski bi ah ci xar yi mais Lamine bu ma jógee foofu muy fan yi gisee li nga xam te ne moom mooy polémique polémique bi mooy gis nañ blessure mbër yi ñu gis ñu ne yéen euh, yéen ou bien euh, waa yéen am ngeen ci part de responsabilité parce que yéen yéenay teg mbër yi lu ñu àttanul gis nañ blessure yi léegi dafa commencé fréquent ci làmb nan ko gisee blessure gis nañ Balla Gaye 2 ak gis nañ ki nga xamante ne moom mooy euh, Balla Gaye 2 Gris Bordeaux waaw gis nañ Ama Baldé amoon na ko fi Modou Lo amoon na ko fi mais nan nga ko gisee blessure yi. waaw di ko dégg comme ni ko nit ñi déggee rek laa ko amee ndax man fekkeewu ma ci kenn bi muy blessé ñoom ñooñu ñëpp mënuma laa wax ni nii lañ blessé wala fii moo lay metti waaw bele yi moom dafa tàmbalee bari léegi moom dafa tàmbalee bari bari waaye boo xam ne nii <laughs> mooy loolu kenn mënul wax lépp Fatma Dia ndax tey jii xam nga rek tey ji soo waxee am na amaana booy waxee ñu ne kii nangam ak sangam xam nga sénégalais critique yi ñoo bari ba tout le temps rek man damay bëgg di wax loo xam ne lu ma maîtriser la ak lu ma gëm quoi mais CNG nag moo fi nekk ñëpp xam nañ ne tey kan lañ fi teg Bira Sène mooy président CNG. moom mooy saytu wàllum làmb xëy na loolu moom ñoom ñàkkul ni dinañ ci def seen réunion dinañ si gën a jug xool lu ñuy gën a defaree mbir mi ba mu gën a rafet daal. gis nañ tamit Balla Gaye ak Eumeu Sène boobu gars yi ñu ko doon xaar blessure moom moo tax combat boobu amul mais loolu lañ ci mën a wax. non mënu ma see sori ndax combat boobu la ma doon wax rek toogu ñoo man benn yoon ne ma combat nii wala combat ndax moo tax mënu ma see sori. lan mooy euh, moom ak Balla Gaye ah, ñu gis yéen ñaar ay waay ngeen Lamine mooy entraîné mbëri école de lutte Balla Gaye ñu gis polémique bu bari na depuis bërki démb ba ah, démb gars yi na lan la gis nañ ni Balla di ko nuyu en passage bu baax a baax gis nañ ni def na benn sortie sortie bu am polémique nag que ni ñu ne affaire coach Lamine du sama coach loolu gars yi bu koo def benn polémique boo xam te ni mais lamin nan la ko déggee ak Lamine bu ko seetaanee tamit ban réaction la ci am. seetaanuma ko sax. billaahi wallaahi seetaanuma ko xam nga lan moo tax ma yëg ko sax tiktok beeg nit ñi may woo appel sama téléphone fu nekk démb ba léegi noppalawuma su ma la wanoon si ay audio ay nit fu nekk nit ñu ma fa yónnee diaspora beeg nit ñi ku nekk ñu may yónnee ay message di wax di expliquer mais man dama leen koo xam ne nii li dama toll foo xam ne man dañ ma jox école teg ma fa ma nekk entraîneur di yor façon nit ku nekk façon yor façon jikko gu nekk kon il faut ma yor tey jii benn esprit boo xam ne esprit de fer laay yor ba li ma yëngal ak li ma déstabiliser yombul tey jii àdduna amul solo te li may wax rek naan àdduna yàlla moo ko moom man aw ma benn problème ci loolu ndax tey jii su du woon nit ñi sax amaana duma ko yëg su du woon nit ñi amaana duma ko yëg mais nit ñi ñoo ko yëg di ko di métti loo ko defee mais man gisuma ci leen lu garaw ndax man Balla Gaye sama waay la sama xarit la quoi billaay sama xarit la à de ay affaire de lamb yi ay yooyu noonu noonu te li mu wax noonu man Balla Gaye nit ñi ñoo fi nekk di wax mais li mu wax noonu dama ko nangul man Balla Gaye mënu ma nekk entraîneur am mënu mënu ma nekk entraîneur ndax xam nga lu tax dañoo boole ki ñu ki ñu fo dañoo bokkandoo woon ki ñu formé di ko ñaanal fa mu tëdd si Cambérène yàlla na ko suuf oyof si kawam yàlla jéggal ko ay bakaaram xaaree ko àjjana yi kawe kawe yi ak bépp baay bu nekk si biir suuf mais Balla Gaye loolu mu wax noonu wax dëgg yàlla dama koo rafetlu ñaawluwu ma ko ñaawluwu ma ko ndax su ma ko ñaawlu woon damay toog wax lu ma neex mais Balla Gaye lu mu wax ak lu mu waxul rek lépp noonu la duma ko topp si dara waaw mais man tamit li may ñaan mooy comme ni ko père Balla def ba génne ko man jeune espoir yi ma loolu laa bëgg man loolu mooy sama rayante fi mu ne nii sama souhait mooy booy yi ma ay fils de bala ay yuusu nduur ay ñoom ndigal ay caatu Daouda Fall ay bébé Garga su ma limee damay juum ay sàmbalaw bi ay gàkko deux ah, ay caatu Souleymane Diaw ñoom Lajoor ñoom ñëpp ay dugaar pël su ma limee rek damay juum ñooñu laa bëgg tey ji produit boo xam ne dañuy génn ci école ñu xam ne kii produit Lamine la mais ñoom ay produit yu Balla Baye Balla lañ muy Elton les de Balla Gaye 2 ay Sokosim ñooñu ñëpp ay produit yu Baye Balla li ne Balla fi muy waxee mooy que ni ñoom ñooñu Père Balla moom moo leen formé. waaw waaw ñooñu ñoom Père Balla moo leen formé moo ñu formé waale ñun ñii te Baye Balla da daan wax wax ju am solo mooy li ñu naan mag day toog si suuf di gis loo xam ne xale bi day toog sa étage ba du ko gis ndax daf daan dëkkee du ñu wax benn baat boo xam ne ndax man man Baye Balla rek laay topp moom rek laay roy ma keneen tey jii lu ma doon rek moom la te ay waxam dama koy toog di ko muy nekk sama bopp ba léegi ne da daan toog naan yéen ñëpp mënoo leen nekk mbër bis dina ñëw ñii dañuy tukki. ñii dañuy doon ay manager ñii dañuy nekk ay promoteur ñii dañuy nekk ay entraîneur ñii dañuy nekk ci beneen liggéey tey wax yooyu yëpp mu doon wax tey moo ñëwaat tey man ku ne ma tey ba may takk ngemb ku ne ma woon ngay doon du ma fi nekk di soon mbër nga woon. man ma dem équipe nationale. man maa ngi woon équipe nationale. kon yow yaa ngi Balla Gaye yéen a débuté woon. 2008 man Modou forsa Forza Auguste Manick Sène Forza mii ngay gis Auguste Manick Sène Laye Ñombar. ñun ñëpp ñoo nekkandoo woon équipe nationale. Pape Mor Lo Ousa ñun ñëpp Balla Gaye moo ma jiitu si làmb moo ma jiitu si làmb man mosuma bëre arène ndax soo gisee dañ daan daje benn kër goo xam ne au passage ngi koy nuyu sooy sama gannaaw la moog laat foofu lañ daan daje daa moon salle musculation fa lañ daan nekk def musculation man laat moo toog moom Balla Gaye demoon nañ ba miinante foofu naan ma doo ñëw bëre seeg yooyu expliqué noonu laat moo ma indi école de lutte Balla Gaye ndax ñoo dëkk ñun ak ñoom Père ñun ñëpp benn koñ lañ. man suñu kër soo fa taxawee yuuxu kër Père Balla dégg la. Père ngeen ba loolu yëpp yaa ngi fa. maa nga fa fa mu daan entraîné ak yooyu yëpp mën naa Balla Gaye mën naa wax jaar-jaaram si lu bari mais loolu du actualité bi fi mu ne nii. actualité bi lenn la mooy école du lutte Balla lañ xam ni rek tey jii moo ñu boole te tey ji yàlla tey jii ku mu neex ak ku mu naqari Lamine la fi yàlla teg moom lañ def entraîneur. te waa CNG defe naa ni moom Lamine lañ considéré comme man lañ reconnaître su ma ko waxee su ma ko waxul ñëpp xam nañ ko ñëpp xam nañ léegi lamb daam am foo xam ne fu mu jëm foo xam ne ni maanaam tey ji su bëree ku considéré wul Lamine tey suba di nga ko considéré ku considéré wul Lamine tey suba di ko considéré mais li ma la mën a xamal Balla Gaye du sama produit produit père Balla la man samay produit mooy xale yi ma yor di leen tàggat bala Gaye dafa mun a ñàkk rek ñu koy gunge rek di ko pousser mais man mënu ko yokk dara mënu ma ko yokk dara mais xam naa ci làmb loo xam ne nii xamu ko. Mhm. ndax làmb dafa sew te daa bëri ay secret ñoom dañoo casé wu benn instant rek dundatuñu làmb sax ñu ngi entraîné ji xëy na ñu ngi def yooyu ñu ngi takk ngemb ñëw di bëri si mais man chaque jour maa ngi ci biir làmb non su ma nee dundatuñu làmb mooy man damay dund làmb maa ci làmb séeréer yi maa ngi arène chaque jour am sama mbër bëre ñàkk a damay dem di suivre mbëri di xool tey làmb ji tey ji mbëri mag yi ñoom ñëpp amul kenn koo xam ne ni ko ma laajoon tey ma wax la si koo xam ne ku ci nekk lim mën ak lim mënul te nit mënu koo dindee ñoom ñëpp ak ñeneen ak ñeneen man wax dëgg yàlla xale nag tarbiya li ma nekk mën naa bëre mën naa bëre li may def nii maîtriser naa ko ndax ñoom ñëpp ku ci tag si biir bëri mën naa laa tàggante te si li ma lay tàggantee doo si teg baat mais maa ngi ñaan ñun jàmm rek lañ xam te lu rafet rek moo rafet te micro dafa doy waar am na ñu bëri ñoo xam ne nii dañuy juum ci micro chaque jour mais li koy def mooy xëy na do avant de parler il faut réfléchir te man lu mu bon bon jàng naa école jàng naa alxuraan kon sama bopp bi am na loo xam ne nii kat balaa may wax dinaa koy xalaat tëbu ma tëb rek nga jox ma micro bi ma wax loo ma laaj gis nga dinaa ne tekk doog a wax déglu la li ngay laaj ba pare mun a tontu lu ma munta tontu te mu leen su ma si tontee dinaa juum ndax nit ku dul juum amul. mën naa bële fa wax jooju wala wala ma nekk ci leneen ba sama xel ñëwaat ci loolu ma doog cee tontuwaat mais Balla Gaye li mu wax moom wax dëgg yàlla lu ko kontaan ci rek pour xamal ni ko moom man duma ma am loolu nangul naa ko man entraîneur xale yi laa comme ni mu ko waxee. <laughs> depuis loolu après yi ñaar déggante ngeen ci téléphone wala koo xamante ni jege na parce que kon li ma wax rek Lamine ak Balla ñoom ñaar seen déggante moom ku ci des ndax yéen ñaar defandoo defandoo ngeen lu ne ay waay ngeen tam loo xamante ni gis naa ko ci est-ce que tamit loolu noonu nekkul benn message boo xam kon li nga wax rek kon li nga wax rek gis nga ay message yu bari ay audio yu bari su ma la waxee benn affaire man mi sax moonte sénégalais ñoo dul déglu man ne man Balla Gaye ma entraîneur am man du ma entraîneur am ndax tey jii dañoo bokk sama xarit la su ma juumul mën ngeen maa yóbbuwaat vaar yàgg naa leen ne sama xarit la dañoo defandoo lu nekk ci lii mu nekk nii am na loo xam ne mu neex ko mu naqari ko am na loo xam ne ni maa ko ci ëppale man it mu neex ma mu naqari ma am na loo xam ne moo ma ko ci ëppale dañuy mottalante rek dañuy mottalante mais man de maa ngi sant bu baax te xam ne sama xarit la sama waay la daal non non non non non non wax dëgg yàlla déggul ma nit ñi ñoo ci topp di wax nii mais man Fatma Dia gis nga bi wax ji baree ba ba démb bi ma xëyee maa ngi sama parking bee di liggéey sama liggéey non soxlawumul dégg dégg ko ban njëriñ la ma amal man su ma xëyee nee naa la maa ngi sama liggéey bële consenter wu si laa nekk ba démb sax dañ ma perturbé ba nga xam ne nii xaw ma ci li may def dara damay dawal chaque instant nit ak may woo soo ma man la xaaral maa ngi lay rappelé waat audio yi nekk sama téléphone mënu liir lire yëpp si loo xam ne c'est des détails da nga fiy wax loo xam ne après dañ la siy jéppi àdduna ŋàññi la te tey ji nit ki soo doonee tey ji tey ji kilifa du ci aas du ci xaalis du ci yére bu rafet kilifa si bopp la kilifa du ci aas du ci succès du man maay am coow lii man maay nangam ak sang kilifa ci bopp la te man sam bopp xam naa ni kilifa laa. ban que nee euh, ngay tàggat école du saison baa ngi dem ba léegi am na booy yi fa am combat am na yeneen combat yoo xam te ne gars yaa ngi mais loolu tey taxawaayu Lamine école de lutte Balla Gaye ñu gis ni Père la am na lu mu fa def ba créer fi champion est-ce que tey Lamine Golo tamit mën nañoo xaar tamit mu créer fa beneen Balla Gaye 2 wala beneen roi des arènes. waaw loolu mooy sama souhait man loolu laa bëgg dama fa bëgg a créer ay yeneen Balla Gaye wala ñu raw Balla Gaye sax man loolu dama ko bëgg ñoo xam ne ni dañuy nekk au sommet ba pare téye seen liñ yor. diiraa bu gudd man loolu laay liggéey Balla Gaye kenn da ko mënati defati leen lu mu weesu Balla Gaye nekk na roi des arènes lu mu war a def ci làmb def na ko ba pare man lii sama suwe mooy déggoo li ma wax boo yii ma la limal mooy nañ am fulla am jom li ma bëgg ñu bëgg ko li ma bëgg li ma leen bëgg le ñoom it ñu bëgg ko muy nekk ci pour jéem a mel ni Balla Gaye wala jéem a raw lu def lu Balla Gaye deful ci làmb Balla Gaye ñaata combat nga ko ki nga ko entraîné comme ñaata combat ba nga ko tegal chaise ndax gis nañ ne sa combat ak Modou Lo bu njëkk wooyee ñaar toogoo woon. non yooyu yëpp Baye Balla dafa doon bëgg ma toog man muy dund sax demoon na bàyyi woon na chaise Elton bi muy bëreeg rëg rëg maa toogoon chaise ay Maguette Seck les 2 bi muy bëreeg dernier combat maa ko toogal chaise. maa toog chaise les 2 bi muy bëreeg moo bàyyi ma ñoon maa toog ci chaise Baye Balla demoon na ba ni toogatul chaise. combat soo xoolee combat moog bombardier ak Gris Bordeaux bi. noo ñaar kese laa si toog coow li muy bari bari yëpp man ñaar rek taman man dama fa toogee woon comme meuble nii xam nga man du ma entraîneur am moo tax. xëy na lu munta ñàkk man maay toogal xale yi fale nga toog nii rek toogal ko. wax dëgg yàlla loolu gis yéen ñaar ci eh, comme combat Gris Bordeaux Balla Gaye gis nañu xam nga jee gis nañ leen yéen ñaar ci ci digg géew bi ngeen di waxtaan nga koy expliqué bay bay wax ak bay def ay action yoo xam te ne dangaa war a jàppi jàpp non yooyu yëpp du dara yooyu yëpp du dara yooyu xëy na ay entraîneur liñ ma wax xam ga man dama comme li mu la wax rek daam ñu ko préparé ñu si nekkoon man am na loo xam dama doon mottali rek mais samay wax xam naa. affaire finition waaw affaire finition xam naa samay wax jariñu ko dara quoi. mooy lima ma rek doon wax entre xarit ak xarit rek si biir géew bi man loolu rek la ñuy waxtaanee ma ak moom tout temps mais li ma la mën a xam Fane Dia Balla Gaye daal sama xarit la. sama doomu nday la sama doomu nday la waaw nit ku. sax yéen di di kii gars yi nu mu tudd. nit ñi ñoo déglu ma non yéen ñoo fi yaakaar ne daf maa sànni xeer wala ay nangam mais sànniwu ma xeer day waxta dañuy waxtaan nii rek ndax li ñuy li muy wax noonu chaque jour ñu waxtaanee ko xuloo ko maag ma man du ma sa entraîneur mënu ma la ah, yàgg nañ ko yàgg nañ koo xuloo di Balla dafa bëgg cenc comme comme yéen ñaar sànni la benn xeer gars yi kii cenc xam moom moom day daa mën a cenc de nekkul ah, tamit daa bëgg xam nga àdduna dañ maa xam ba pare te xam nga rek waa non non du loolu xëy na dafa bëgg a gën a yokk sama buzz rek xëy na loolu la si jubloo daf ma yéene quoi nit su la yé xam nga nit su la yéenee nu nekk la koy jaare yii yëpp dama jàpp ne waaw daf ma yéene rek mais sant yàlla rek ndax coow lii moom wax dëgg yàlla daf ma amaloon njëriñ ma xaalis non man coow bu may may xaalis laay wër mais pas coow Omar kon xar tabaski bi ñëw na wala ñëw koy jox maa ngi liggéey maa ngi liggéey de coow bi kanji borom ETDR jëndal na ma xar moo xam ne ne gisuma ko ci mbaar mi fu mu toll de. Ah. kanji produit bari bari na bari na ndax man nit ku nekk da ngay am say nitu bopp am say soppee boob man dama am samay nitu boob ñoo xam ne wax dëgg yàlla xam nañ ne Lamine manqué wul dara ñàkkul dara mais dañ maa bëgg te yàlla rek tax ñu àndee ngir Serigne Touba di ànd te dëgg si ànd si dëgg te ànd ñu si ànd jayante ak àndu nay naxante ñooñ ñoo yëkkat di ma jox te xaaruñu ma laaj leen ko te moo taxit lépp luñ nekk rek dama ciy nekk man duma laaj kenn nee la man du ma topp kenn kuy xaar ma topp la yaa ngi nax sa bopp man laajuma kenn man je suis majeur et vacciné magum jëm laa te kilifa laa nee naa la loolu laa amoon lu may wax Fatma Dia bàyyi may nga def xar moom am naa ko te ngaa ñëw bii moom sooy dem nga yóbbaale ko kañ ji jox na la xar kooku mu ngi koy defal ñi nga xam ne ñoo ko soxla te wax dëgg yàlla mu ngi koy def di nit ku baax di ko ñaanal entreprise am bi mu yor yàlla na ko sunu borom yokk kawel ko ba mu gis lu rafet njottam lu kawe njottam tamit en plus Kandji nit ku baax la di sama conseiller nag. baax la nit ku baax di sama conseiller. Kandji tey jii bi ba woowee di avant may ñëw woo naa ko ne ko ma Dia daf ma bëgga jël mais si lii la ma bëgg a jëlee mu ne ma suma sañoon doo wax ndax démb li nga waaw ndax démb am na loo xam ne démb li ma wax si situ Thier boobu moom lépp da mën naa ne dama toog di ko réciter rek ndax nit la koo xam ne nii du wax lu ñaaw du digle lu ñaaw. du santaane lu ñaaw waaw damay roy si jikkoom lu bari ndax ay jikkoom doy na ma neex na ma kànje moo tax tey jii ba may wax sax nee na ma lu munta ñaaw ma ne ko Fatma Dia de mu ngi sax gétt ga di ma xaar te mënu ma ko bëgguma ko peew mu ma demal rek nga wax te wax ci lu rafet te bul waxee dënn bul waxee dara bul waxee xol àdduna amul solo maa ngi koy sant di ko gërëm si conseil yi ci lépp ndax man loolu rek laa koy doyee doyewu ma ko leneen mais tamit sama PDG Fallou Ndiaye jox na ma xaar bu rëy rëy defal ma ci benn enveloppe na ma teel di ko ñaanal yàlla mooy xéewalam yokk yàlla yokk lépp léppam ci barke yonent bi xar bu nganda ngand la ma jox jox ma enveloppe te bu ko neexoon loolu yëpp bañ ko cee fekk Ndiaye production sama mag sama xarit maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp te naan Fatma Dia su fekkee wax naa fi leen lu may juumee maa ngi jéegal di baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq tey xamal ne àdduna àdduna amul solo te àdduna li may wax rek yàlla moo ko moom Balla gay Balla sama xarit la sama doomu nday la Balla Gaye sama xarit la sama doomu nday la xëy na am na yoo xam ne mal communiqué la rek xam nga chaque jour nag dama ko yàgg ne ko demal di jàngi muy bañ. Ah, yii wax ay français. ay erreur rek lay wax yii yëpp ñàkk a jàng moo ko teg dama ko yàgg di xase demal nga jàng demal am nga xaalis fayal koo xam ne mu lay jàngal. nga xam ne balaa ngay wax di sax sax mooy loolu mais ñàkk a jàng moo tax mënul communication bu baax su waxee léegi tey jii ñi koy jéppi ñëpp ak di ko kalaas yëpp nañ xam ne xol bi dara nekku si li mu nekkee nii du tayef de ñàkk a jàng rek moo ko yóbbee lii na dem jàngiwaat su wala mu bàyyi wax si micro man loolu laa koy digal mais nit ku baax la askan bi maa ngi leen di xamal li muy wax nii yëpp bu leen ko jàppee muy dara. bala ngay mais ñaan ak yoon kenn nekku ci de bu yeboo ngeen maandu dama lay wax benn affaire sëñ Bamba xam na ni moomin la. billahi moomin la jarul ngeen ko topp xamul yàlla topp xoolal lu ko weesu jàpp ngemb nii la ñuy daanee mbër ak nii laay da mënul sax wane kele bu tey jii dama la wax benn affaire su doon entraîneur sax mbër mu muy entraîner di nga sonn mënul wane sax kele xam nga doole boo xam ne nii yàlla may na koy pexey daan mbër mais amul pexey jàngalaate nit loolu c'est vrai kon bu doon expliquer xamuñu ko man maa xam Balla Gaye su nit ñi doon bind si moom 32 pages ah. ma bindal leen ka 100 pages si moom ah. na xam ni moomin la buñ ko toppee muy dara man de toppee ma ko dara man de su toogoon tey ji si internet beeg si télé yi naan Lamine Golo maamam dëmm laak nangam ak sangam moo def lii moo lekk diw ak fekk naa ba muy këf pooj baak bu ko naa nekk dëgg la ndax ñaar yéen a yàgg ngeen du ko mere de duma ko mere si dara barke sëñ Bamba sama waay la sama xarit la maa ngi koy nuyu au passage di nuyu famem di nuyu sama famille yooyu yëpp di nuyu sama yaay bu baax sama sëriñ sama xarit di ko ñaanal yàlla guddal fanam may ko wér ak tan yàlla bàyyi ma fi xam nga rek yaa ma gën a xam mooy non maa la gën a kontaan wax dëgg ndax àdduna lii la rek tey jii ñu bëri dañuy toog yaakaar Lamine daa mere Balla Gaye wala wax jim ko dafa tuuse Balla Gaye sama xarit la man du ma entraîneur moom wax na dëgg formation père Balla la man formation booy yi laa yor pour jéem leen a génne ëllëg ñu xam ne Lamine moo leen def lii mais gars yi buñ ko jëlee noonu nag. ba non euh, altine ak talaata la. bis joxul si diggante bi. ñoo far maa ngi koy ñaanal yàlla na ko jàmm sonal lépp lu mu bëgg si làmb yàlla na ko yàlla defal combat bu mu dugg yàlla na ko sunu borom am may ndam mooy ñu gis lamin ak ñu ñàkk a bañ gis lamin nañ xam ne Lamine oh, mm, je suis de tout cœur avec Balla Gaye. Euh, dama war a voyager nag. damay voyage da te fi ma jëm mission laa jëm te un an laa fay dem. non non non am nañ fi entraîneur yaa ngi fi Mbaye Fall xam nga école de lutte Balla Gaye non kontaan ga ci man mais dama lay wax man damaa xam ni ñuy daanee Mbaye Fall yàlla def na xam nga école de lutte Balla Gaye yàlla dafa def li fi nekkoon rek moo fi nekk ñun dañuy kolo kolo rek billaay lu baax am fi tur bi rek moo fi ne mais gis nga entraîneur bu fi dégg turu école de lutte Balla Gaye nga yaakaar ni mbëri nangam ba nga yaakaar ni da ñëw fii yaakaar ni école bi day neex di baawan yaa beaucoup de l'argent yaa ngi nax sa bopp fii muñ moo fi am ak ngor de dara muñ ak ngor moo am école de lutte Balla Gaye te si Baye Balla si la ñu tàggat si lañ xamee nii mooy mosu ñoo xam da Baye Balla luñ mos a am école am la moom rek mooy jël ñun amuñu si problème man muñ googu Baye Balla def si man moo fi am école de lutte dara amu fi billaay wallaay suñ xëyoon tey jii jëlee entraîneur keneen ne ko kaay nga topp si ginnaaw Lamine wala kaay Lamine ñëw suñ entraîneur bu ñu indi woon man nangu naa topp si ginnaawam. mu essayé deux mois wala un mois ndax xam naa ni booy yi rek ah. man rek la ñuy topp. te man booy yi man rek lañ bëgg man rek lañ mën a topp. te man rek lañ ragal moo tax dañ ma ragal ñeme. non dañ booy ragaluñu non booy yi dañ maa ragal. Eh. yow man may bëre di daan. da xaa ñaata koob ba àgg ba tëgal Fatma Dia nañ mbala xam nga lii lépp soo gisee mbala gi da cee baax ñu xam ñun moom àdduna yàllaa ko moom kafre non stress après ñu jël jël meew meew lan meew fukki dërëm def si glace ah tëmbal naan non loolu day kii day lóor nga jënd ay téeméer meew sax moo tane mais day baax na bu far bi moo tane bu loolu sama papa mais fukki soo fukki dërëm la daan jël sama papa yal ko yàlla yëm te xaari ko àjjana soo fukki dërëm la daan def ci glace bu bari doom yëpp naa man daal xoolal beneen bi may fàtte naa kii garaaw sama xar daa xam ne da nga koy yóbbu yóbbu ko Fama Dia sant naa la gërëm naa la nag nuyu naa la bu baax sama xarit ndeysaan nit ku baax am loolu am lay mbalak démb nañ ci lu bare école de lutte Balla yàlla na fi jàmm yàgg yàlla nañ yàlla gën a jàppale gën ñoo suudeel ba xel yeeg xol yeeg yëpp doon benn yàlla kattanal ñu lépp luñ songandoo sunu borom defal ñu si ndam su xoli àndee rek ndam yomb mais su xoli divisionné rek mooy loolu mais ki war a jàppale xale yi na jàppale xale yi waaw non non non kuy war a jàppale xale yi non xale yi ñoom ku leen war a jàppale laa wax quoi mooy ñi leen di jàppale ku leen war a jàppale jàppale leen te xam ne ay ndaw lañ amuñu dara nañ topp seen mag déglu ko ta xam ne moo leen jiitu ci aar bi liñ mën a roy ci moom ci lu baax nañ ko roy liñ gis ni si moom neexu leen ñu bañ koo roy ci moom loolu rek mooy àdduna àdduna yàllaa ko moom bilaay yow sama yoon laa bëgg defaraat quoi. combat bi dafa nekk combat boo xam ne. combat bu am important la suma carrière. si si kanam sama place laa jëlaat si làmb te incha allah le huit. nga xam ne damay jëlaat sama place si làmb. man may xale man maa nekk si yoon. man la làmb gën a yaakaar bu dee bëre maa ko dàq bëre bu dee doole maa ko bu dee fit maa ko dama jël combat bi pour wane suma bopp dama jël combat bi pour moom dama jël combat pour daan ko combat bi maa ko gën a soxla téeméer yoon man combat bi ñaanu ma ko yàlla lu papa am si man dama seeti leneen su dëggalee boppam dañuy xeex dañuy bëre ma daan ko incha allahu rabbi dama xamul ne loo yem ma ba jël ma loolu dina dëggal boom rek papa mi ngi wax maa ko su dëggalee boppam mu duma ko daan ko incha allah te lamb ji dama deux minutes su dëggalee boppam ñu bëri man ak feel like everyone's a stranger